wax ngeen fii ba fen wax ni am na militant wu a Seck bu jóge yu waa Matam yu ñëw rejoindre Ousmane Sonko Ousmane Sonko désormais na ngay vérifier na ngay vérifier say information parce que c'est un on t'a vendu un éléphant blanc kooku mag moom bokkoon nañu groupe nekkul benn leader mag moom dañoo jàppante loolu tax ma fàttali ko. Parce que déjà, c'est quelqu'un qui a un problème de personnalité. Je vais te mettre euh, la, vidéo. La vidéo où le responsable politique de Réumi, responsable politique bu Réumi, démentir def ko wane ni que waaj a ñëw ci yow tekkiwu fa dara à la veille des élections la ñëw. rapproché wu coalition Idrissa Idi 2019 ba élection yi passé gisatuñu ko xoolal gisatuñu ko bokkul ci benn activité amul benn influence ci ci ci activité yi am foofu ba kañ ba ba ngay def yow sa don de san vous êtes malhonnête ba ngeen di def seen don de sang boobu kooku mu ngi woon ak yéen j'ai les images on m'a envoyé les images pour wax la ne ndoo mon frère maa ngi ñëw woo la may leen ma tuuti rek euh, wetti xuuxaat ma ma ma ma ma tiiñal Ousmane Sonko Ousmane Sonko boo bëggee nekk yow Sénégal <laughs> Ousmane Sonko il faut que tu aies un peu plus de rigueur il faut que tu aies un peu plus de rigueur parce que si tu ne peux pas maîtriser les informations autour de toi comment tu vas maîtriser les informations dans un état je suis même plus réseauté que toi parce que kooku ba mu ñëwee ne la dafa la rejoindre mu nii que dafa libre quitter parce que sa Seck dafa dugg ci gouvernement day fen day fen te yow mooy yéen ñi ñi la ñi organiser loolu dañ la fenn Ousmane Sonko kii moo ngi nii xaaral ma génne la ma génne la ay photom ana photom yi photom yi ba muy def don de sang ak yéen muy nii le 31 octobre il était avec vous seen don de sang bi mu ngi nii Ousmane Sonko c'est une erreur boo xam ni yow waroo ko war mën a def un leader de parti le gars moo nekk nii moom la ñu def flèche bi nii le 31 octobre il a participé à votre don de sang Idrissa Seck kañ la def déclaration début novembre donc 31 octobre fekk na kii mu ngi woon ak yéen Début novembre, Idrissa Seck a fait sa déclaration. Vous allez sur votre page quelques jours après pour faire croire que waa ji li Idrissa Seck dem di ànd ak Macky Sall tey moo tax mu démissionné ñëw ci yow c'est un mensonge Ousmane Sonko c'est un mensonge et ça c'est à votre niveau le niveau auquel vous aspirez parce que vous n'y êtes pas encore c'est impardonnable monsieur Sonko non xaaral ma wone la sa déclaration bi Ousmane Sonko na nga moytu say moytu leen vous êtes trop léger lii moo tax mënu leen convaincre ñu mel ni man man il me faut de la consistance de la rigueur ñu ku mel ni man consistance da ngay taxaw da ngay taxaw nga doog ma mën a convaincre dinaa la jaar fu ne làmbal la xool ba mu wër ma ni kii y a chose y la matière ma doog la mën a déglu yegg goo foofu. erreur bi nga def nii dafa ñaaw yaa ngi mel ni taw PS bu njëkk ba on dirait PS bu njëkk ba chaque jour de recevoir ñu ngi recevoir te fekk zéro méthode PS yooyu ngay def nii Ousmane Sonko du la yóbbu fenn maanaam c'est comme si yow da ngay da ngay sàkk mi xoolal li ñuy wax sàkk mi te yëyoo dara da nga nekk di sàkk mi te yëyoo dara xaaral ma woon la ndeysaan fiñ la naxee daldi di ne Pastef yaa ko wax de monsieur Demba Dem Demba Dem mag moom bokk nañu groupe du fa dara du fa <laughs> Demba Dem yaa ngi fàttali jour ba ma la fekk si groupe bi fët la dama la chauffé jaxase la carrément ba nga toog di ma wax ay livre yoo bind ak ay kii complexé taxawul sax ci biir groupe ICOM 24 tu te rappelles foofu laa la fekk jaxase la parce que da fa nekk di jéem a dugal ay kii ma fekk la jaxase la xamoo fooy teg say tànk. nga mujjee di ma fekk inbox di négocier ak man pour ma wàcc ma yéeg duggaat après defal yëkkati la <laughs> ok Marième Bassa Dia sept sept cent mille dont les militants de Idrissa a euh, dont les militants de Abdoulaye et de Khalifa Sall parce que beaucoup de militants de Khalifa Sall ont fait semblant ils n'ont pas voté pour Idrissa Seck yaa ngi ni sa waa ji xoolal tekkiwul dara foofu mais li li am solo ce qui est important le plus important c'est que le 31 octobre le 31 octobre ce monsieur-là il est parti il était avec vous il a fait un don de sang avec vous donc il était déjà avec vous Idrissa Seck n'avait pas encore fait sa déclaration pour dire que il allait travailler avec monsieur le président Macky Sall non bii dama koy toj dama c'est du petit lait ma tegal leen musique fen baaxul Ousmane Sonko fen baaxul fen bu tooy xepp ngeen fen gëmloo ay nit que ay militant wu Idrissa Seck dañoo nekk di ko quitter di ñëw ci yow à Matam jaa ngi nii won naa leen photo yi won naa leen image yi waa ji il était déjà avec vous Le 31 octobre, il faisait avec vous votre don de sang, votre opération don de sang, opération politique, don de sang politisé. Mouini, mom la flèche du visé sa c'était le 31 octobre. Donc, ay fen. Non, fen yi, fen yi, fen yi nga xamni dañ ko diriger. Bu leen bu len neexee seeni fen pour ma bañ koo relever. Bu leen ko jubal ci ci ci Idrissa Seck, bu leen ko jubal ci parti réew mi bu leen ko jubal ci gouvernement bi. Man fen baaxul Damay xex fen man. fu mu mënti jógee su ma amee jotam su ma ñàkkee jot nag ngeen am chance donc mu ngi nii le 31 octobre merci aux patriotes de Matam qui sont venus répondre à l'appel du président Ousmane Sonko dans le cadre des journées nationales de dons de sang unis nous vaincrons votre monsieur là est là avec vous Et vous voulez faire croire aux Sénégalais qu'il a quitté le Réumi quand Idrissa Seck a déclaré aller répondre à l'appel du président Idrissa Seck muy fen muy ab fen kàcc pourquoi fen yi Ousmane Sonko fen bu rëy bu day nii pourquoi nga koy fen pourquoi léegi maintenant je vous mets le démenti. bonsoir à tout le monde je me nomme Ibrahima Alassane Guissé responsable du parti Réwmi au niveau de la commune de Hope. mu ngoog situé dans le département de Matam et en même temps le coordonnateur départemental des jeunes du parti Réwmi. Je voudrais avant tout d'abord rendre grâce à Dieu de m'avoir donné cette occasion de m'adresser davantage. Partagez leen vidéo bi fen bi ñëpp xam ne la vérité. par rapport à la coordination départementale du Parti Réuni. En effet, depuis quelques jours, des mensonges circulent à travers des réseaux sociaux en soutenant l'idée selon laquelle qu'un certain responsable communal du parti Réumi au niveau de la commune de Matam aurait quitté le parti pour le compte d'un quelconque parti pour lequel je ne citerai pas le nom pour ne pas lui donner davantage de buzz. Ceci étant dit, la coordination départementale du Parti Réuni adhère entièrement à la décision de son président, M. Idrissek, d'avoir répondu positivement à l'appel du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Nous le félicitons. Nous l'encourageons davantage à être à côté du peuple sénégalais. Parce que nous sommes convaincus qu'en conjuguant nos efforts et avec également le courage et la détermination que le, tout, que le Tout-Puissant lui a accordé, ils pourront ensemble redresser ce pays sans aucun doute. Donc, nous lui réaffirmons notre disponibilité, notre fidélité, notre engagement sans faille envers le parti et envers lui. Tout parti politique ou tout mouvement qui tenterait davantage de jeter des discrédits ou de raconter des contre vérités dans le but de saper le fondement de notre parti, en tout cas sera voué à parce que nous sommes plus que jamais déterminés à accompagner notre président, à accompagner notre pays pour que les difficultés auxquelles les Sénégalais sont confrontés au quotidien puissent être conjuguées, autant pour moi, au passé. Et de ce fait, nous vous donnons un rendez-vous très proche pour montrer à l'opinion nationale et internationale que le Réumi, que est toujours à côté de son leader et sera toujours à ses côté Je vous remercie. C'était juste pour rétablir la vérité par rapport tout simplement aux, mensonges circulés, véhiculés à travers les réseaux sociaux. Ibrahima Alassane Guissé responsable Rewmi à Matam a démenti formellement cette contre-vérité que vous voyez sur la page du président Ousmane Sonko la page du président du PASTEF le gars Deme n'était ni responsable au niveau du parti il était avec nous dans certes mais sans aucune envergure aucune envergure militant simple il n'avait aucune responsabilité d'accord Avant, il est arrivé là-bas, comme beaucoup, à l'approche des élections. Après les élections, on ne l'a pas revu. Il est parti au PASTEF bien avant. Le 31 octobre, il était avec vous déjà. Pourquoi alors, le 4 novembre, après la déclaration du président Idrissa Seck, sortir et essayer de faire croire au Sénégalais que, n'est-ce pas, vous avez décroché une ponte du à Matam ce qui est complètement faux arrêtez leen fen bi Sonko lee il faut Allô? que tu te soignes grande sœur waaw mon frère Ibrahima est-ce que ça te dérangerait de participer oui. dans mon live je suis en direct ah d'accord d'accord ça cela ne me dérangerait pas ok voilà donc j'ai montré votre vidéo j'ai visionné votre vidéo euh, j'ai mm -hmm. montré que euh, le monsieur Deme on va pas lui faire de la publicité. Mm -hmm. On va faire comme CNN fait. Quand quelqu'un a fait du, du mm -hmm. de, de, mauvais actes, on évite de lui donner mm -hmm. de la visibilité. Parce mhm. que beaucoup font de mhm. mauvais actes pour, avoir, pour gagner de la publicité à partir des, des faits délinquants qu'ils ont mhm. fait ou des faits malhonnêtes qu'ils ont fait. J'ai cité Sonko parce que c'est sur la page du pasteur Pastef de Ousmane Sonko qu'on voit la déclaration selon laquelle le, le CIE, le GUS, a à APR Matam à la suite de la déclaration du président Idrissa Seck de répondre valablement, favorablement à l'appel du président Macky Sall. N'est-ce pas Et vous m'avez envoyé des photos, j'ai été vérifié. Le monsieur, il, a, il était déjà le 31 octobre bien intégré dans les rangs du PASTEF, n'est-ce pas voilà je te laisse la parole et comme ça tu peux yow xam nga ne nga wax ko directement yow mi nga xam ne yow yaay principal acteur bi yaa nga fa nekk sur le terrain je te donne la parole Vous avez fait le point de presse aujourd'hui, n'est-ce pas C'est pour ça, ouais. point de presse et certainement les éléments seront nouveaux. Très bien, impeccable. même vous avez des, des, des images après. Comme. De toute façon, pour le moment, je vais, je vais intervenir directement mm -hmm. pour, pour, pour, pour l'AF, donc il n'y a pas de souci. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok, donc il n'y a pas de souci. Okay. Mhm. Voilà, donc le monsieur, il avait déjà quitté les rangs de Réumi depuis. Il était militant depuis quand aussi Ces questions-là m'intéressent. Madame Astagna, vous avez raison. Mais j'aime pas le mensonge. maa ngi jéggalu madame Bassagna euh, Alassane maa ngi lay jox la parole s'il te plaît tu peux expliquer. d'accord. lay déglu Alassane. d'accord. sinon, je peux vous rappeler, je peux vous rappeler plus tard si vous préférez. Non, attends, attends, attends, attends. J'ai presque terminé, attends. Mm -hmm. Hélène, Hélène. Je... je... suis en train de visionner. Le live. <laughs> Mais oui, vous, oui, vous n'avez même pas besoin de ça. De, de si vous, vous, parlez, vous allez à votre, tout le monde vous entend, et après vous allez pouvoir vous voir si vous voulez. à moins que vous ne voyez a lay dégg waaw boo duggee ci live bu dee am nga caméra mun naa dugal ci caméra bi. na am naa caméra am bu affaire bi de bu dee sa. téléphone baax waaw naa la dugal vidéo. am na caméra. d'accord. ah mais lumière defal lumière comme ça ma def la en voilà je vais waaw ñëpp lay déglu waxal Sénégal yëpp a lay déglu. Euh, bonsoir à tout le monde je m'appelle euh, Ibrahima Alaskoundoussi. Mhm. je suis euh, le coordonnateur départemental des jeunes du parti Rewmi. Mhm. à et en même temps le responsable du parti Rewmi au niveau de la commune de Hoh. Je parle également au nom de tous les responsables des différentes communes du département de Matam. Mm aussi au nom du coordinateur départemental, M. Hamidou Kamara. Et au nom également la responsable des femmes départementales, Mme Aminata Kissi, mhm. entre autres. Euh, effectivement, j'aimerais juste apporter quelques clarifications par rapport tout simplement à euh, un supposé ou à une supposée, à une supposée défection mm -hmm. de notre parti ici à Matam. Mm-hmm. D'ailleurs, loolu loolu loolu am. Mm-hmm. loolu musul am je vraiment confirmer loolu parce que man yàgg naa ci parti bi xam naa kan mooy vrai responsable du parti bi kan mooy militant ak kan mooy sympathisant fii ci réew Euh, ki ngeen tudd kooku du ma sax tudd turam parce que su ma ko xam naa su ma ko tuddee dinaa ko jox bës te loolu duma ko def li leer ba leen dama bëgg Sénégal yëpp déglu je parle également sous le contrôle des images je parle également sur le contrôle des faits réels je ne parle pas pour parler ce que je dis ce que je dis restera à jamais gravé dans la mémoire mm de tout un chacun d'entre nous. nga xam ne dafa wax moom dafa dafa quitté mi à la suite de la déclaration de du président mhm. kooku waxul dëgg waxul dëgg parce que bu ngeen bu wala bu ngeen demee ci page mhm. gis. ci benn journée de don du sang bu seen parti bu seen mouvement bu seen mouvement mouvement boobu mhm. la defoon te boobu dafa daté dafa daté le 30 octobre 2020 30 mhm. octobre 2020 mhm. te président Idriss moom si déclaration pour sur son entrée dans le gouvernement dans la majorité présidentielle date ci premier novembre deux mille vingt. premier novembre. Mhm. kon nag à partir de là mën xam fan la dégg fan la dégg bi fekkee kooku nag kooku nag dafa ñëwoon rek dafa ñëwoon rek peut pour undi euh, ay intérêt boppam loolu moo loolu moo tax moom yàgg sax ci parti bi kenn xaw ma mhm. dafa ñëwoon juste à la veille des élections présidentielles. te après après élection yi kenn dégg ko kenn gisu ko mhm. kenn déggatu ko moom dafa dem mer mhm. dem yoonam mhm. man maa ngi soog a sax gis à partir de sa page Facebook sama benn soppe la publié woon foofu laa ko seen foofu laa ko gis ma ah, kon kii donc <laughs> si fii la fee moom day wër rek day wër rek quoi. ok c' est pour dire. Mm -hmm. cette personnalité là n'a aucune conviction n'a aucune base. Mm -hmm. ici nous permettant aujourd'hui d'arriver au président Idrissa Seck dans très large. ndax tey boo xoolee tey tey tey tey tey qualité image bi baaxul fii fii ci ooru. Mhm. fii ci mhm. ooru. waaw. co coordination départementale du parti Rewmi. s'est mhm. réunie ici sous la présence. des journalistes chevronnés mmh. avec la presse nationale mhm. Mhm. ñoom ñëpp fii lañu fii lañu ñëwoon ci mhm. def nañu benn point de presse vraiment bu am les dix responsables des différentes dix communes que compose de Matam ñoom ñoom ñëpp ñëw Mm-hmm. ak seen civilité ak seen. président Idrissa Seck comment dire encore. Mm-hmm. ak seen ànd. Mm-hmm. ak suñu président Idrissa Seck. amul kenn ku des. ñoom ñëpp ñëw nañ ñoom ñëpp également wax nañ. ñu ngi ginnaaw président Idrissa Seck. macha allah te dañoo bu baax a baax. li nga xam ne président. décision bi parce que décision bi. c'est une décision saa une décision bi nga xam mhm. ne dina manière désintéressée la ko def mhm. ngir Sénégal ngir ngir ngir Sénégal ndax moom mhm. xaw ma bu ngeen bu leen di fàttalikoo lu mu doon wax lorsque euh, temps bi président Macky ki di convoqué kon palais ci période crise euh, Covid 19 bi xam dafa waxoon ci benn phrase phrase bu am maanaam ndax jour boobu dafa dafa journaliste yi l'eau qui est destinée à éteindre le feu n'a pas besoin d'être filtrée absolument xam nga loolu aussi am na solo xam nga loolu mhm. xam nga loolu day mhm. mhm. constance constance bi bu am ci ci ci bëgg-bëgg constance bu am tout am fii ci dëkk bi kon fépp mhm, fi nga xam moom leer na mhm. bu fekkee mhm. moom fu dugg moom bu duggee foofu mën nañ vraiment amal njëriñ dëkk bi même bu fekkee moom du du amal njëriñ dina ko def ndax loolu mooy acte de patriotisme xam nga patriote nekk nekk bari taxaw fa di wax man patriote la patriote la taxul nit nekk patriote ndax patriotisme d'abord c'est dans le sang kooku il n'a pas attendu jusqu'à amasser pas mal d'argent pour pouvoir un jour se réveiller et se sur la vie politique mm-hmm. dans la vie politique mm-hmm. dafa dafa teel depuis à l'âge quatorze ans bi ko Abdoulaye Wade ñëwoon à Thiès ànd ak son oncle bu tudd Badara Badara Niang Aliou Badara Niang mm-hmm. à l'époque il avait quatorze ans depuis loolu ba léegi son engagement pour son pays, pour le continent africain mhm. et pour le reste du monde entier n'a pas tout cessé, n'a pas varié. Mhm. Il est toujours resté lui Donc quand on cherche, quand on cherche autant pour moi, la constance, ça se trouve chez C'est la raison pour laquelle nous, ici à Matum en tout cas, nous sommes plus que jamais déterminés à l'accompagner dans cette situation-là. Parce que nous savons, il ne choisit pas pour choisir. Mmh. Tous ces choix sont justifiables parce que c'est l'intérêt de la nation qui le préoccupe. Et par voie de conséquence, toute personne mm-hmm. qui colporte de la militance, des mensonges, dans le but de pouvoir, comment dire, de si lui, en tout cas, son, va se vouer à l'essai. Mm-hmm. ndax ñun fii ci Matam encore renouveler suñu confiance suñu fidélité suñu engagement vis-à-vis de cette grande homme d'État mm-hmm. un homme d'État qui a fini aujourd'hui de démontrer ses qualités intrinsèques en tout cas de la valeur et de sa dignité masha Allah masha sa wax am na solo Je suis très fière de toi et je pense que le message est bien passé. Je te félicite. Je te félicite donc pour euh, ce que vous avez eu à faire aujourd'hui. Je me réjouis que ce soit, que ça a pu euh, se faire avec succès. On se reprend plus tard en inbox. Dina ma dina ma wootante kontaan naa torop ci yow. Merci beaucoup. Jërëjëf. Merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Yàlla sàmm leen. Merci. voilà donc comme euh, à l'instar du Sénégal tout entier euh, Mani Ousmane Sonko tu as tiré dans l'eau ça c'était pas une prise c'était pas une belle prise t'as rien pris le gars il était avec toi depuis octobre euh, officiellement on l'a vu sur votre sur sa page alors venir euh, au mois de novembre déclarer qu'il qu'il t'a rejoint parce que Idrissa Seck est allé travailler avec euh, avec euh, Macky Sall euh, relève de la pure euh, invention quoi yow garaaw nga de garaaw nga torop torop torop et c'est ça la rupture c'est ça la rupture il rupture dans le mensonge rupture dans la calomnie rupture dans la méchanceté non mais non non non c'est pas ça loolu taxul nit wax ñun du loolu ñuy wër léegi ma tegal leen benn interme inter euh, <laughs> intermède musical ma ñëwaat ci yeneen preuve kenn bàyyiwu ko tout ce qui était yawa yawa gaa yi yokku nanu mag ya wér nanu yokku Idrissa yokku na mag yokku ku bëgg ma yokku jógal taxaw ngeen borom yasriba kula kona ngula an sama tulundo yawa yawa irisa yawa yawa ndeysaan la ilaha illallah mer boko irisa la ko may ak Macky Sall la oh, ko yu fa may Macky Sall mo sa maa ngi ñëw yawa yawa président Idrissa Seck dafa lay kër ku bëgg président Macky dafa lay kër ku bëgg Sénégal dafa lay kër.